di ngeen dem ci dialogue bi. moi ça les les les, les consultations oui, démarrent lundi. je je ne l'ai pas vu d'ailleurs si bien comme non attends je, ça aussi je vais. di ngeen ci dem oui oui pour que tout la classe politique dialogue à partir de ce moment-là et je vais te dire pourquoi. nous avons vécu au Sénégal ay situation yu terrible yu grave et ça Khalifa Sall le rappelait d'ailleurs si biir de presse bi mujj. dund nañ fi 88 année blanche couvre-feu Dakar yëpp di takk ñuy jënd lacrymogène et ay autres dund nañ fi assassinat vice-président conseil constitutionnel dundu nañ fi ay policiers yu ñu rey ci biir dëkk bi lu nee dund nañ ko fi xam nga su lu lekk lu mu mujjee dialogue ak gouvernement de majorité présidentielle élargie ay nit ñoo ko ndox ay nit ñoo ko waxtaan man day am ay moments yoo xamante ne day am acte yoo xam ne bu woo c'est-à-dire que non seulement ça interpelle le peuple sénégalais le génie du peuple sénégalais mais au-delà de ça dafay interpeller la classe politique le sens de la responsabilité de la classe politique. donc da ngeen dem ci dialogue. Euh, pour couvrir une forfaiture. parce que la forfaiture là la sanction est déjà faite par le conseil. ah d'accord mais donc vous irez que. aujourd'hui nous sommes dans une situation boo xamante ne lii xew Sénégal kenn mosu ko prévoir benn texte prévoir ko nekkul si constitution bi. donc il faut s'organiser autour du dialogue il faut créer un droit nouveau et consensuel il faut que acteurs politiques yëpp nangu toog waxtaan. c' est pas maintenant ce que Macky Sall de dire gis naa gis naa messe bu mu bëgg a organiser inviter tout le monde c' un débat technique qu'il faut avoir. nit ñi dajee autour du ministère autour du de la DG autour de techniciens société civile et autres ñu toogandoo ñu ne qu'est-ce qu'il est possible de faire techniquement pour tenir les délais et pour satisfaire critères bu conseil bi wax ne il faut organiser l'élection dans les dans les meilleurs délais et ça personne d'entre nous kenn suñu amul droit amul sañ-sañ ne du dem euh, du dem si dialogue boobu la ma waxoon bee passé. te Khalifa Sall dina dem aussi. mais c' est moi c' position le tey la débat bi di génn bu ñu dajee woo au niveau de de xalifa euh, Khalifa président de l'université effectivement on en discutera chacun donnera sa position l' avantage que nous nous avons mooy ñun amuñu benn leadership dirigiste ñun lépp si sunu biir dañuy toog waxtaane ko ndax dañuy def lii ndax duñu def lee ndax duñu def lee duñu def lee loolu moom moo ci am am solo maintenant évidemment Macky Sall j'ai vu ce qu'il convoque bëgg na convoquer grand messe bi au nit ñi ñëw mu def benn kii am affaire mais gis nga même élection yi ñuy passé beaucoup de gens pensent que bi Khalifa Sall demee dialogue dialogue bi ak Macky Sall la woon ba ñu defee ouverture boobu ba mu jeex ba noppi la ñu suba ñun ñëpp dem dajaloo entre techniciens dem réfléchir ba ñu paree la ñu dellu si waat si moom Khalifa Sall jamais je n'ai pas revu Macky Sall ba ba ba ba débat bi jeex le débat il est technique quand on parle de dialogue politique les gens dañu yaakaar ne non ay négociation Macky Sall rek woote téléphone passe sama téléphone ce n'est pas ça c'est un débat technique à parti de ce moment là tey laa koy waxante léegi ak waa société civile ne leen lii ñuy dund Sénégal bu ñu si artuwul walla ñu jóg si ñun ñëpp toog waxtaan dem leen seeti nit ñi ku nekk ngeen waxtaan ak moom ku nekk ngeen jël xalaatam ki ma doon waxtaan ak tout ça mi sama xalaat loolu man ne ko non yow sa xalaat amul solo li am solo mooy nañu jël xalaatu ñëpp nañu xam ne tey benn défi majeur la bu ñu la bu am euh, euh, au Sénégal et nous devons tous faire faire face nit mënul xëy ne euh, constitution bi lii la wax mun a wax ne loi organique lii la wax munoo wax ne partie réglementaire code électoral bi lii la wax amul benn disposition ci biir code bi wala ci sunu dispositif législatif wala constitutionnel bu prévoir lu lii fi am il faudra ñu d' accord si kan la ñuy def élection de d' euh, accord ci naka la ñuy defee campagne électorale d' accord ci euh, premier tour kañ lay am période contentieux deuxième tour bi kañ la d' accord si campagne électorale deuxième tour kañ la d' accord si datu deuxième tour kañ lay am. et d' accord kañ la ñuy euh, installé président démb conseil constitutionnel jël na acte du retrait de la candidature de Rose Wardini mu republier une nouvelle liste de dix neuf candidats qui doivent compétir pour l' élection Euh, mu mel ni conseil reste sur sa euh, sur sa sur sa trajectoire euh, de l'autre côté j'entends hier Abdou Mbow l'a dit dinañu dialoguer dina ñu ñu ngi bëgg a daal envisager l'hypothèse de de de de de rebattre les les les les cartes de lancer un nouveau processus de sorte à ce que ñeneen ñi nga xam ne génn nañu leen te ñu jàpp ne war nañu bokk ñu bokk. non c'est pas possible c'est pas possible et j'ai même boo liggéeyee boo lire même euh, décision ou communiqué conseil des ministres euh, le, le, le conseil des parle de finalisation du processus électoral c'est ça qu'il y a dans la décision du conseil des ministres donc ñoom si seen bopp waxuñu ne dañuy reprendre la procédure ils finalisent dañu tàmbali woon déjà le conseil wax naa la tout à la décision du conseil wax naa la valeur juridique am nee naa la en réalité le conseil constitutionnel dans les dispositions même de la loi bu xasee rendre décision kenn mënatul a jël si waat si décision bi muy euh, bi mu jël te conseil arrêté woon na déjà la liste des candidats yi nga xam ne moom la moom la jëloon muy 20 la loi moo ko wax ne bu fekkante ne diggante bi am na benn candidat bu désisté wu conseil bi dafay publier waat liste bi mais duñu reporter élection yi donc le conseil a appliqué des dispositions dindi au lieu de vingt candidats maintenant on a on a dix-neuf donc la décision du conseil amul prescription amul lu koy soppi amul lu koy changer amul voie de recours amul benn façon bu nit mën a def pour contourner ko wala pour éviter